non data baaxul lëf day yàq nit Sadio ba nga kattagul woon ni nga aaye ba nga commencé katt nga yàqu lii nii laaj sénégalais yi di ko laaj di ko ŋawti ŋawte mooy sa jëkk sa jabar ji data lan la yore lii mun a nekk lëfu nit kese non non data nit mënu ko nekk kii lim la jox attanoo ko barki alxuraanu karim yéen a ñàkk fayda gañ ay équipe yu mag Côte d'Ivoire di leen gañe Côte d'Ivoire di leen wan lii ngeen di rate ñaata bal nga rate Sadio Mané ñaata bal nga rate Aliou Cissé moom gat xamoo ko dara xamoo tus bu leen ma ndeyu tàngaloo may lekk ndeyu téléphone bi waaye